wa rahmatullahi taala maa ngi yëkkati kàddu gi ci ndigalul sëriñ Sidi Muxtaar ñu ñëw ànd ak mbokk yi jóge ci sëriñ Cheikh mu sëriñ Abdul Xaadir ñëw teew ci ëtt bii bi nga xam ne kenn du ko fi laajte fii ci kër sëriñ Baara Ñaŋ ngir di fi waajal màggalu sëñ Abdou Khadir Mbacké sëriñ si bi ci ndigalu sëriñ Cheikh at mu jot ñu tànn ay bokk ay xam ne séq nañoo ak sëñ lu war a tax loolee njaboot war koo dundal kàddu googu lañu yëkkati tàmbalee ci nuyu kilifa yi fi teew yëpp tey jiital ci Serigne Omar mi nga xam ne mooy xalifa bu Serigne Mbacke Bousso radiyallahu anhu Serigne bi dara fet bu baax teewaayam ci biir njaboot bu ku mënoon a yabal mu doy waaye ñëw gëm ñëwul boppam day teg ci ab dayoo ak jox gu mu jox mbir mi ak xaram Serigne Ba ko ñuy baax di ko siyaar di nuyu mboolem mbokk yi fi teew di ay wëllëre di ay xarit di ay mbokk. ñoom ñëpp lii ñu fi gis bokk na ci li tax sëriñ bi doon taamu jataay yu mel nii yoo xam ne boo dikkee danga yëg ne ñu ngi bokk ci ñi nga xam ne walladina na ma amara allahu bi an yusal moo tax sëriñ bi xolam sedd na xelam dal na ndax yéena jim amoon ci cër sëriñ Baara ñan ci bisu sëriñ Abdou Khadir mbokk yi dégg nañ ko ni mu ko fag ni mu ko bëggee woon bala ma jàll nag naa ñaan sëñ mayo ma siyaare sama bàyyi bopp sëñ Cheikh Mbacke Guédé di ko nuyu baax di ko ñaanal mu yàgg fi tëye euh, sëriñ bi nag woote gi muy woote jataay bi ci fàttaliku sëriñ Abdou Khadir Mbacke mi nga xam ne waxtaan yi fi dégg rek jaroon na tax ñu woote bi yi fi sëriñ Cheikh naa bu sa cumbuleen rotal sëriñ Lamine Diop sëriñ Mouhamadou Fadil Niang ak mbokk yépp jaroon na mbokk yi daje ngir nafar dund googu ndax dund la goo xam ne lépp njariñ la njariñ loolu nag la sëriñ bi bëgg mu tasaaroo saa bu ñuy fàttaliku sëñ Abdou Khadir Mbacke nit ñi yokk ay bind te loolu dégg nañ ci lu am solo moo tax sëriñ bi sëriñ Cheikhouna mi ngi lay santu bu baax di la ñaanal yàlla sàmm la te baril say kem euh, sëriñ Abdou Khadir dafa doon koo xam ne lim doon jëmmal dafa am solo mooy danaa ko faral di wax mooy wan nit ñi ne li yàlla bëgg nit mel ni nit mën na ne mel yu bare bari bu ñu koy wax ci ndigal yàlla yeeg tënku ci bañ koo génn dañuy foog ne rek góorgóorlu fi su waaye kenn mënta mat ah kay sëriñ Abdou Khadir wane wane manis naa mat loolu nag di ko fàttali nit ñi dañ leen dimbali dañ leen jariñ moo tax sëriñ bi at mu jot muy tànn ay kër di fa amal jataay yu mel nii ngir dundal mbokk googu nga xam ne sëriñ Abdou Khadir ku ko xamoon xamaale ko dundal ak bopp sikkuñ ne jataay yi xolam sedd na ci ndax li ko booleeg sëriñ Bara Niang mbokk yi wax nañ ko mbokk ga xaritoo ga jaxasoo ga ba tax noonu ko waxee jëloon sëriñ Mouhamadou Mbacké taawam jëbbal ko ko mu def ci moom mu ci loola day sedd na moo tax sëriñ bi sawar ci ñëw fi fekk si nag mbokk moo xam ne ni ko mbokk yi waxee ku fi ñëw da koy fay bor ndax xew wu am mu ñëw ñëwal boppam ñu ngi wax muy sëriñ Abdourahmane Niang sëriñ baa ngi lay nuyu di la siyaar di la jox sa wàccuwaay waaye di rafetlu taxawaay bu rafet gi nga taxaw ci kër gi xam sa jur li taxoon mu boole leen Sëriñ Abdou Khadre Mbacke nga xam ko di ko dund ànd ak njaboot di ko dund kon di la ñaanal suñu borom sàmm la te dëgëral la ba mébét yi mag ñi mébétoon yëpp mu àgg ci seeni loxo taxawaay bi rafet na diggante mbokk gi taalibe gi ci wët anam yëpp jotaay bi fiir firndeel na ko biñ ko wootee mbooleem ku fi teew kenn du ne kii lu ko fi indi loolu sa liggéey la sa taxawaay la euh, ñi ngi la ci ndokkeel ñi itam ndax li ñu séq ak yow te nga xam ko ñu xam ko te nga rafetal ko loolu itam euh, sëriñ bi daal euh, sant ak ñaan la man am ndamit ci ne yéen a jëm bëggoon ba tax mu muy amal jataay yi mel nii bi mu dikkee fii ci Gede fekk na ko ba fekk fi lu ko raw ndax sëriñ bu xaadira gade moom kër gu ne kër gu ne mën nañ faa woote jataay bi su boobaa jàpp nañ ne nii lay mel ndax sëriñ bu xaadir moo ko liggéeyoon diggam ak waa gede ginnaaw bu leen yàlla boole lim boole mu nekk fi jële fi lim fi jële waaye doon fi lim fi doon kon bu ñu fi di fàttaliku ganek àddunaam ci ron ci buntu kër mbokkam moo xam ne liñ ko bokk waxee ñoo bokk bàyyi bokk ndey sëñ Bara wëlbati ko di nijaayam te yooyu yëpp ñu rafetaloon ko kon ku dégg loolu doone lu tax loolu nag ndokk ñu dëkkee fekk mbokk yi ànd ak noonu sëñ baa ngi leen sant yi ñëpp di la yàlla waaye di wax nag ne ñi ngi wa lii waaj waajal màggalu sëriñ Abdou Khadir yi sëriñ mi nga xam ne ku ko wax wax mbaax ku ko wax wax njub ku ko wax wax gëm yàlla ak doylaw ci jamono yi nga xam ne jàngoro ji dal nit ñi te mat a saafara mooy ñàkk gëm yàlla gëm yàlla bu dëgër Sëriñ Abdou yi jëmmaloo ne ku gëm yàlla doyloo ko lépp lu war ci yow yàlla dana ko def li ab jullit di soxla ci àdduna Sëriñ Abdou Khadre am na lépp loolu ñu jàll jàll te kenn mësu koo dégg ci lu dul luy dëgëral gëm yàlla ak wakkiirlu ci moom ak doyloo ko kon mbokk yi sëriñ baa ngi soññee di fàttali ne nañ gëm yàlla te doyloo ko te xam ne moom mi ñu fi indi bañu fi li war ci dana ko def kon li ñu war ci moom nañ ko def su ko defee ñu mën a noppalu bu dul te du teel yàlla bëgg rek ay am kenn ku ne ci noonu borom bi napp na ci mbiram mbooleem liy gaar nii nit ñi lu yàlla nosoon bu yàgg la muy gaar saa bu waxtoom jotee mu ñëw rek yàlla noppi na ci yëpp nit du lekk wërsëgu nit nit du toog palaasu nit nit du dund nit dundu nit kon nañu rafetal bàyyi xel la yonent alayhi salaam waxoon ne ragal leen yàlla te rafetal li ngeen di wut ni ngeen koy wute ndax nit du faatu te wërsëgam jeexul ittaqullaha wa ajmilu fi talab fa inna nafsan lan tamuut hatta tastakmila rizqaha sëriñ lu Khadir loolu ci la tënkoon ak dundam ba tax li ko waroon digum boroom lépp matal ko li ko waroon ci njabootam ak i bokkam ak taalibe yi yëpp matal ko li ko waroon ci digg mu mbokki jullit ñi ak réew matal ko ba ñibbi aljanna kenn jëmu ko li ko war lépp def na ko mbokk yi wax nañ ko ba ak julli musu faatu ko dibéer ji mu génn àdduna takkusaan fekk ku fi te julli na loolu nag fi la baax mën a yem ñooñu ñooy roy waayu yi ñeneen lu ñu leen mën a wan ñu bokkut la ñu dañ leen dina naan baa ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm àddina ak àlaxira wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu